li ma waxoon it mooy ci football bi tey yàlla defal nañu lu am solo kon lu am solo loolu peuple sénégalais laa ci jëkk sant sant ci joueurs yi ak encadrement technique waaye presse bi ñaax bi ma leen di def bu tuuti la football léegi ñépp ko man waaye nag suñuy gone mën nañoo football jomit am nañ ko te xam nañ ne fii lu jëm jom ak sa peuple jàppale la mooy tax nga man fa àgg mooy ñu jël coupe ndax bi ñu jotagul indépendance ba léegi ñi ngi daw mënuñoo jot ci coupe dem nañ fi final dem fi demi final dem fi quart de finale coupe du waaye jëlaguñu te daa jot ñu jël ma jàpp ne nag yéen ñëpp bu ngeen ànd ak ñaankat yi ànd ak état ànd ak encadrement bi yéen presse bi ngeen seet ñi bëgg lu baax ngeen jël ko seeni wax ngeen jàllale ko ndax ndamu Sénégal ndamu ñun ñëpp la yaakaar naa ne Tunisie moom dañ koy gañ mu dese ñu Côte d'Ivoire wala euh, astafurla Nigéria wala Algérie baal ma yaakaar naa bu ñëpp mobiliser woon loolu lu war a mën a nekk la pour ñu mën a gañe ndax jàpp naa ne lu jot kon nañ félicité gaynde yi ak encadrement bi mais nañu mobiliser ñun ñëpp te bañ a critiquer bàyyi encadrement technique bi ndax dañu leen a fay pour ñoom ñu am résultat te it yi dañoo bëgg seeni performance tax ñu jar ay milliards ndax milliards yi fii lay dellu kon léegi dootu po dootu po kon jàpp leen ci ñoo ngi félicité gaynde yi di leen encourager di nekk seen ginnaaw man bu ñu demee finaal bëgg damaa dem tàccu ji kon ñett sama warugar la jën naa billet ba pare xëy na yeneen tam yeneen ñeneen ñi danañ dem ci loolu loolu laa ne woon dinaa ko wax asalaam